asalaamaaleykum sama gaañu ñu ngi leen di siyaare bu baax baax fii ci Rewmi Sport talaata le 22 octobre ñëw ci xibaar yi bu fekkee ne abonné go ñoo ngi sàkku nga abonné partagé lii di vidéo bi lu ama am solo ci seen bi ñëw ci xibaar yi le 22 donc octobre 1949 le 22 octobre 2024 loolu ci 75 ans lay toll loolu moom mooy atu ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Arsène Wenger nekkatul koo xam ne ku ñuy donc présenté la ci monde football ñëpp xam nañu ne bu ñuy wax meilleur entraîneur histoire de football moom da ciy bokk moom ki nga xam ne moom mooy Arsène Wenger Wenger mi nga xam ne eh, ci jamono 1963 la nekkoon joueur ca jamono jooju mu daan jouer défenseur central après mu doon kët su bu Arsenal. xam ngeen ne moom kese mooy équipe bu mooy yor équipe bi mas a ab saison ba mu jeex ci Angleterre te amul benn défaite eh, di Arsenal moom kii di Arsène Wenger gagné na ñetti championnat yu Arsenal moom daanaka. depuis 2004 ba tey Arsenal mi ngi wër beneen euh, Ligue des champions beneen championnat bu Angleterre ba tey euh, mënuñ ko am donc moom mii moo leen ko joxoon moom kii di Arsène Wenger moo tax légende la même sax kii Pep Guardiola wax ne euh, moom mooy meilleur entraîneur de l'histoire du football kii di Sir Alex Ferguson nee na moom da koy neex muy daje ak kii di Arsène Wenger donc joyeux anniversaire la légende. sunu jugee foofu dañuy bàyyi équipe boobu noonu wala book sax coach bi mais dañuy continuer ci Arsenal attention Arsenal Arsenal déjà. amagun na trois cartons rouges ci biir saison bi trois cartons rouges amagun nañ ko ci ñetti joueurs yoo xamante si ni yu bokkul la est-ce que lii nii mënul indi ay jafe-jafe euh, ci euh, li nga xamante si ni moom mooy équipe bii di Arsenal ah kay lu mën a indi ay jafe-jafe la ci équipe bii di Arsenal ndaxte déjà bu ñu xoolee depuis dix ans lu mat fukki at a ngi nii euh, daanaka gisuñu ku am ñetti carton rouge ba noppi gagné championnat bu Angleterre ki ki fi mujjee def moom mooy Leicester City c'était en 2014. mooy Leicester City bu ñoom Kanté bu ñoom Mahrez bu ñoom Vardy donc ñooñu amoon nañ lu ma trois cartons rouges ba noppi daal di remporter li nga xamante si nii moom mooy championnat bi mais depuis boobu ba tey Chelsea gagné na ko ci diggante bi Manchester City gagné ne ko fi Liverpool gagné ne ko fi mais ñooñu équipe yooyu ñu wax nii yëpp amul équipe boo xamante si nii ci biir saison bi jël na ci lu mat donc trois cartons rouges kon su bari ba bëri ñaari cartons rouges lay yem kon loolu li muy wane mooy euh, ku ko wax Arsenal Arsenal xelam du dal nañu def très attention parce que ki nga xam ne si ne moom mooy Mikel Arteta nee na dina xaw a jafe pour que ñu jouer saison bi avec 10 joueurs loolu yaakaar naa ne lu ñu war a joyante la ci club boobu nga xam ne moom mooy Arsenal ban ngeen xaar donc ak euh, monde sport tey jii nii war a demee lu jëm ci wàllu ak yaatal par rapport ak euh, statistiques yi nga xamante si nii dinañ ko montrer club yi nga xamante si nii donc dañuy faral di am trois lii di euh, lii di carton rouge ci même saison bi nan la ñu mujjee dundee li nga xam ne moom mooy seen saison ci biir championnat bu Angleterre mais en tout cas équipe la boo xamante si nii des na yu bëree bëri yu mu war a yu mu war a acheter da nga naan sax Arsenal bu daaw ba est-ce que tënewul Arsenal bu ren bi donte nag Mikel Arteta baat boobu lay bañ a dégg donc on verra prochain match lan la Arsenal di montré bokk tey jii nii ci match bi war a commencé 19h dans une une heure de temps diggante moom ak club bi nga xam ne moom mooy waa euh, kii di euh, Shakhtar Donetsk concernant nag euh, carton rouge bu ki nga xam ne moom mooy Saliba équipe bii di Arsenal amoon na li nga xamante ne moom mooy chance pour mën a dem fi mbaxana doone benn pour que ñu daal di mën euh, dindi lii di carton rouge bi maanaam daal Arsenal manoon na def appel am ñu koy wax recours pour que ñu dindi carton rouge bi euh, ba sax démb kii di Mikel Arteta di kii tàggat Arsenal waxoon na ne loolu du liggéeyam liggéeyam moom mooy coach sa équipe bi mais koy ay def ay recours ak yooyu Euh, club bi ñoom ñoo koy seere mais information yi nga xam ne mu nañ kaa jot mooy que Arsenal parewul pour def li nga xam ne moom mooy recours xëy na kon Arsenal daf kaa leer naññ ne euh, carte rouge bi ñu joxoon euh, kii di donc Saliba contre ki nga xam ne moom mooy Efa Nilsson carte rouge boobu peut-être que lu valable la kon ki nga xamante ne moom mooy Arsenal fësul yéene donc def li nga xam ne moom mooy lii di recours pour que ñu dindi carte rouge bi kon bu nu maytuwul Saliba du mën a fekkee choc bi war a dox diggante Arsenal ak kii di Liverpool. ki nga xamante si nii moom la ñuy tuddee Anthony Gordon comme niñ ko fi di ko woon donc euh, si depuis année deux mille vingt quatre ki nga xamante si nii moom la ñuy tuddee. Anthony Gordon daal dinay renouveler yokk na contrat bi dox diggante moom ak club bii di euh, Newcastle United ba atum deux mille vingt neuf ba atum deux mille vingt neuf Anthony Gordon nag nee na moom. Euh, mbégte lay am ak kontante ngir yokk contrat am ak club bi nga xam ne moom mooy Newcastle United ndaxte Newcastle club la bu mag léegi nag li mu bëgg mooy gagné ay coupe coupe yu ci demee ne championnat bu Angleterre euh, coupe yu ci demee ne aussi Ligue des champions nee na moom loolu moom mooy reefam moom kii di Anthony Gordon Anthony Gordon nag gaañ xam ngeen ne jour la boo xamante si ni à chaque fois day jege pour dem ci top 6 Angleterre yi maanaam daal 6 équipes yi gën a mag ci Angleterre à chaque chaque mercato rek dañ koy dégg ci benn côté yaakaar naa ne laa ka mu doon dem Newcastle United laa ka mu jege Everton club ba mu gënoon jege mooy Chelsea finalement que transfert bi mujjul woon am ba tax sax mu meroon ci lool bañ écarté woon ko groupe bi daaw tamit maanaam mercato bi ñu yeesu Liverpool bëggoon na ko ba def ci sax ay démarches yu avancé mais que transfert bi mujjul am kon avec li nga xam ne moom mooy prolongation wu contrat am manis naa jàpp ne dina xaw a jafe lool pour que ñu gis kii di Anthony Gordon nekk joueur bu équipe bi nga xam ne moom mooy Liverpool pour man nag nekkul perte pour Liverpool parce que Liverpool am na Luis Diaz et que yoo xamante ne aussi mën nañoo dikk ci Liverpool si diggante bi comme que Luis a ngi ci Liverpool rek euh, Jota mi ngi ci Liverpool kon Liverpool manqué woon ay ay excentré sans oublier aussi kii di guddi Napoli ak Gakpo. Liverpool googu sax gaañ yi dañuy préparer seen match Ligue des Champions mais nag euh, mauvaise nouvelle yi euh, am na ci euh, benn côté bi ci njëkk mooy que tey jii nii seen entraînement bi nga xam ne doon nañ ko amal am na ñetti joueurs yoo xamante si nii fekk wuñu entraînement bi bi ci njëkk di doomu Portugal bi nga xam ne moom mooy Diogo jotaa Diogo jotaa deful entraînement bu Liverpool tey ki nga xamante si ni moom la ñuy tuddee Francisco Chiesa aussi Federico Chiesa donc deful li nga xamante si ni moom mooy euh, lii di euh, entraînement kii di euh, Ganaru Bradley aussi di doomu Irlande moom te mu deful li nga xam ne moom mooy entraînement kon nañu xaar fii ak suba pour xool ba xam est-ce que kii nga xam ne moom mooy ñetti joueurs yi nii dinañ mën a disponible pour mën a participer ci troisième match bu Liverpool. ki nga xam ne moom mooy Virgil van Dijk daal dinay dëggal ne. lii di waxtaan bi door na diggante man ak kii di Liverpool way loolu moom moo ko wax moom kii di Virgil van Dijk là c' est une excellente nouvelle pour équipe bi nga xam ne moom mooy Liverpool vraiment Liverpool lu mu leen ti jaral nañ ko def pour que ki nga xam ne moom mooy Virgil van Dijk mën a yokk parce que moom mooy indi stabilité ci li nga xam ne moom mooy défense yu Liverpool bi actuellement mënuloo donc c' est pas le moment c' pas le moment de perdre ki nga xam ne moom mooy versil van Dijk Van Dijk nee na bëgg cee wax lu bëri nag bëgg te wax tamit lan mooy dikk fii ak quelques mois ndaxte xamut li nekk ci kanam xamul ëllëg mais li wóor bu wóor mooy li mu bëgg mooy réussir Liverpool li mu bëgg mooy année bii nii doon année bu exceptionnelle ci Liverpool mais encore. Liverpool dañu commencé ak projet bu bees projet bu bees mënuloo kaa commencé perte ce jour bi nga xam ne moom mooy indi stabilité défensive ci sa équipe bi c'est pas du tout donc euh, une bonne solution maintenant ñu xool lan mooy am ci lii di euh, négociation yi ak fan lay mujjee. ki nga xamante ne nag moom la ñuy tuddee euh, Anthony donc Taylor moom mooy war a arbitrer match si soog bi war a jox diggante équipe bii di Liverpool ak équipe bi nga xam ne moom mooy Arsenal xam ngeen ne loolu soog Premier League la. parce que ki nga xamante si ni moom mooy Liverpool actuellement moom mooy première ci championnat bi ba tey benn défaite dong la am ci li nga xam ne mooy huit journée yi muy contre ki nga xam ne moom mooy nga xamante si ni moom la ñuy tuddee donc kii di euh, Arsenal moom euh, nekk ci euh, quatrième place bi daal di sax am ñeenti koñ ju dox diggante moom ak kii di Liverpool loolu li muy wane mooy match bi ñu jëm match la boo xamante si ni Liverpool mën naa éliminer benn adversaire mais aussi tamit Arsenal mën na profité pour xëcc pour gën a mën a jege li nga xam ne si ni moom mooy champion bi nekk ci lii di première place bi kon Anthony Taylor moom moo a arbitré match boobu. entraînement amoon na tey ca Manchester City euh, lii di sax taskatu xibaar yi daal dinañ leen ubbil li nga xam ne moom mooy euh, lii di bunt yi ñu mën a seetaan si mën a poser ay questions mën a xool li nga xam ne mooy joueurs yi ñan ñoo nekk forme ak euh, technique. tactique yi nga xamante si ni Pep Guardiola dina ko teg donc la lii Manchester City mayoon na ko lii di taskatu xibaar yi lañ ca nemmeeku nag mooy que Kevin De Bruyne na ci li nga xam ne moom mooy entraînement bi xam ngeen ne De Bruyne heure bii nii yaakaaroon ne dina dikk après cinq semaines d' lu mat juróomi semaine Kevin De dafa blessé Pep Guardiola bi ko ci laajee lim tontu mooy que fi mu toll nii mënta wax exactement kañ la kii di Kevin De Bruyne def lii di retouram mais tey jii. 15 minutes yi jot na ci participer tuuti mais entraînement individuel la woon mais pas collectif maanaam moom kese moo ber woon di entraîner lan moo tiital nag taskatu xibaar yi nga xam ne ñu ngi ci biir foofu ci biir Manchester City mooy que ki nga xam ne moom mooy Jack Grealish ak kii di Serem Doku ñaari joueurs yi yëpp kenn participer wu ci ci 15 minutes yi nga xamante si ni taskatu xibaar yi ña nga fa woon. waaw ñoom ñaari joueurs yi muy doomu Belgique bi muy doomu ki nga xamante si ni moom mooy anglais bi di ki xamante si ni moom la ñuy tuddee donc euh, Jack Grealish ñoom ñaar participer wuñ léegi nag ñu xool ba xam est-ce que dinañ mën a disponible parce que demain Manchester City war naa daje ak kii di Sparta Brague donc mu doon match boo xamante si ni City moom it ko bëgg a gagné pour mën a assurer li nga xam ne mooy place am pour mën a jàll ci beneen étape pour mën a jege li nga xamante si ni moom mooy qualification bi pour lii di huitième de finale lii di Ligue des Champions kon ñu xool di si demain dinañ leen toppal dossier wu ñaari joueurs yooyu noonu. dañuy wax ci kii di Georgi Jodakov am na sax ñu koy tuddee le nouveau Mudryk mais pas le Mudryk bi nga xam ne moom la ñu gis actuellement à Chelsea mais le Mudryk bi nga xam ne dafa baaxoon à donc Shakhtar Donetsk donc ki nga xamante ni donc moom la ñuy tuddee Sodakov ay jeu équipe yu bëree bëri dañ ko bëgg donc fa li nga xam ne moom mooy ca biir championnat bu Angleterre et que loolu ki nga xamante si nii moom la ñuy tuddee kii di euh, donc euh, directeur. sportif bu ki nga xamante si nii moom la ñuy tuddee euh, Shakhtar Donetsk daal na koy confirmé gaañ nag xam leen na ñi ko bëgg équipe bii di Manchester City ci la bokk et que ki nga xamante si nii moom mooy Shakhtar bëgg na ci lu mu gàtt gàtt cent millions pour mën a bàyyi ki nga xamante si nii moom mooy Soudakov daal di koy libéré à cent pour cent. bu nu bàyyee ko donc foofu ci biir Manchester ak mbiru Soudakov dinañ ci dikkaat parce que c'est pas seulement les clubs anglais ñoom ñoo bëgg jënd ki nga xamante si ni moom mooy Soudakov mais y a d' autres équipes yoo xamante si nii ñi ay club italien lañ ñi ay club espagnol lañ pare donc à acheter ki nga xamante si ni moom mooy Soudakov dañuy wax ci kii di Sékou Koné Sékou kone doomu Mali la international malien 17 donc moom gagné tey jii nii la def première entraînement avec donc l'équipe première de Manchester United way tey jii nii moo doon première jour boo xamante si ni kii di Sékou Mara war a bokk kone Koné daal dinay entraîné ci club boobu nga xam ne moom mooy Manchester United kon normalement dans les prochains matchs ki nga xamante si ni moom la ñuy tuddee Seckou Koné dina mën a participer en fait pour daal di mën a jouer avec équipe boobu nga xam ne moom la ñuy tuddee Manchester United c' est pas seulement moom mais ki nga xam ne moom mooy Zido Obi Zido Obi aussi gaa ñi expliqué woon nañ leen ne gaa ñi am nañ yaakaar ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoo dàq dugal ci génération foofu ci biir Angleterre gaa ñi Zido Obi moomu ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, lii di euh, superviseur lañ leen mën a tuddee maanaam ñi nga xamante si ni ñoom ñooy saytu euh, xale yi. gëm nañu ne fii ak quelques mois dinañ ko ji si équipe U21 équipe U21 nag lañ wax xam nga moom xale la 17 ans 18 ans la am actuellement ci xale yi lay football mais xale yi am na ñeneen ñu leen gën a magaat laataaka ngay ñëw ci équipe première bi foofu nag la wax ne kii di Sidy Obby ma nga fay waaj dem parce que la muy wane ci boppam ci entraînement yi ca match dafa doon loo xamante si ni lu dayoo doy waar la kon si gàttal Arsenal ñàkk na un euh, ñàkk na benn choix ñàkk na euh, benn espoir di ki nga xam ne moom mooy Sidy Obby kon Manchester moo ci desal man sa seex donc gaañe pare nañ pour taqali ko ak ki nga xam ne moom la ñuy tuddee kii di Anthony way ki xam ne si moom mooy Anthony xam ngeen ne depuis de la saison daanaka benn match rek wala ñaar la joué avec ki nga xam ne moom mooy Eric Ten Hag Ten Hag dafa jël décision ferme ci ki xam ne moom mooy doomu Brésil bi équipe bi nga xam ne moom mooy euh, Manchester nag pare nañ donc pour tàqali ko ak doomu Brésil bi nga xam ne moom mooy Anthony bu fekkee ne gis nañ ay proposition yoo xam ne yu conséquente lay doon actuellement nag gisaguñ ay club vraiment yu sérieux et que dina jafe trop ci Manchester donc ñu jaay ki nga xam ne mooy Anthony ci janvier bi yaakaar naa ne li gën a probable moom mooy prêt maanaam daal ñu able ko able bi nag mën naa ànd ak option mais janvier actuellement nii gëw ma ne United xaalis bi mu bëgg dëgg-dëgg dinañ ko ko jox et que Manchester United pour man li gën bu fekkee ne gëm ne amatuñu yaakaar ci xale bi mooy que nañ ko jël ñu able ko buñ ko ablee mën naa am fañ koy ablee dina réussir bu réussiree nga jaay ko jéem a jee jege xaalis bi nga xam ne moom nga ko jënd woon fële ca Ajax Amsterdam am na ñu naan kii di Ansel Gomes donc di benn jeune bu man football lool formé à Manchester United Ansel Gomes am n nu demee United jëndaat ko loolu nag gaa ñi nekkul information boo xam ne bu wér la actuellement Manchester United deful li nga xam ne moom mooy ak dox jëm ci ki nga xam ne moom mooy Angel Gomis Angel Gomis actuellement ñu koy woo ci équipe nationale Angleterre muy jouer avec ki nga xam ne moom mooy lil Angel Gomis am na sax benn légende bu Arsenal boo xam ne keroog daal dinay wax ne pour moom Ansel Gomes bu ñëwoon joué ci club bii di Arsenal dina bokk ci meilleur milieu de terrain anglais yi moom kii di Ansel Gomes waaye lii information bi daal da nga xam ne mën nañ ko démarrer actuellement mooy man que Manchester United fi mu toll nii liggéeyul pour daal di delloo si ki nga xam ne moom mooy Ansel Gomes y a d'autres nag yoo xam ne ñu ngi koy bàyyi xel. gaa ñi xam leen ne jeudi bii ñu génn maanaam daal alxamis bi ñu génn am na ñeent ci ñoo xamante ne ay ndaw. Manchester United lañ maanaam daal ñeent ci dirigeant yu Manchester United jóge nañu Angleterre demoon sa Barcelone te am na ci ñoom ñoo xamante si ni ñaar jot nañoo gisee ak Xavi Hernandez kon contact am na diggante Xavi Hernandez ak Manchester United ak mais nag contact contact intermédiaire nekkagul benn proposition officielle ndaxte actuellement bu fekkee ne résultat yi dikkul il fallait que nga commencé di def li nga xam ne moom mooy de petites conversations maanaam daal di commencé di contacter yenn club yi nga xamante si ni yenn jeu euh, entraîneurs yi nga xam ne ñu ngi ci marché entraîneurs yooyu nag kii di Xavi Hernandez da cee bokk gan gaañi xam leen ne Manchester United moo ngi bàyyi xel bu baax a baax kii di Xavi Hernandez ak kii di. Omar Berada bokk ci njiitu Manchester United yi bokkoon na ci ñi nga xamante si nii defoon nañ délégation pour gisante ak kii di Xavi Hernandez kon nañ bàyyi xel dans les prochains mois diggante Xavi ak Manchester United dañuy dem fële ca biir euh, RB Leipzig Manchester euh, City Liverpool euh, Paris Saint-Germain donc balaa ñu ci dikk ci kii di Luke Ba gars ñi continuer leen bu fekkee ne abonné go abonné la nga partagé li nga xam ne mooy vidéo vraiment c'est hyper important doomu donc moom mooy France la. Euh, forme à Lyon donc am 21 ans man football wow kong donc di ab défenseur central ñu koy tuddee Castello Lukuba Castello Lukuba gars ñi dina prolongé contrat am ak équipe bii di Leipzig ba 2029 club bii di Liverpool mi ngi koy bàyyi xel. Manchester United mi ngi koy bàyyi xel club bi Juve mi ngi koy bàyyi xel Paris Saint-Germain aussi mi ngi koy bàyyi xel xam leen ne à partir de dina am benn clause libératoire bu toll ci 90 maanaam daal dina jar 90 bu ñu ba dina jar 65 millions ngeen jëf ba ci kanam incha allah avec prolongation de Lukeba.